bu jàmbur. mais ayibam moom en général du ciy bëgg di wax. Mhm. te lépp nag patron de presse yi la aussi. Mhm. patron de presse bi moom mooy jël kii liggéey ak ku dul liggéey. Mhm. moom mooy waxtaan ci affaire salaire yi moom mooy respecter wala déet la convention collective donc taskatu xibaar bi wala reporter bi bokk li mu ci am. mooy soit mu nangu conditions yi nga xamante ne moom dafa fekk. wala aussi mu bañ ko nangu mais ñàkk bañ nangu bi aussi tekkiwul ne rek dañ ko war a def di ko liggéeyloo duñ ko fay. Mhm. Euh, euh, waxuma la sax euh, ñi ñuy fay déjà pay bi demewul noonu. Mhm. mais ñi ñu fayul aussi ñoo ñu dañu war rek régler seen problème. Mhm. donc tey inspection du travail boobu mu junj. dama ñu leen di encourager aussi ñu dem ci jusqu'au bu ba nga xamante ne tey képp koo xamante ne këru tasukaayu xibaar nga. nga am ay reporter am également ay techniciens parce que dañ leen di fàtte souvent. Mhm. ñu respecter li nga xamante moom la convention collective bi wax. Mhm. parce que nag mérité nañu ko. Mhm. Euh, ñoom ñoo choisir def tasum xibaar mënoon nañ dem defi leneen. waaye nag tekkiwul ne aussi dañuy nekk ci entreprise yi rek patron de presse yi di gundaandaat. leneen li ma gën a metti soxna am yi. mooy gestion bi nga xamante ne dafa am ci li ñu doon tuddee aide à la presse. patron de presse yi da ngay gis euh, ñoo xamante ne bu léegi ñu changé tour bi tuddee ko fonds développement euh, de la presse. Mhm. dañuy gaaw créer ay entreprise uniquement. pour mhm. am ci aide à la presse. pourquoi parce que xaritu ministre bi la. Mhm. wala xaritu président bi la. wala rakku xaritu président bi la. te aide à la presse bi sax ci ñoom lay yem. ñoo koy jël def ko ci seen propre compte bancaire. ñii di ci tabax ay kër ñii ci jënd ay oto. alors xaalis boobu dafa war a dugg ci entreprise bi. bu ñu jëlee xaalis bi ba da nga gis entreprise yu bari dañuy disparaître. donc mu mel ne ñoom aide à la presse moom moo leen. moo tax ñuy créer entreprise yi moo tax nag mhm. l' actuel ministre la communication. bi fi mhm. nekk xam ne mhm. moom mooy suñu kilifa ñun. kër ah, mu mel ni euh, ñu ngi ñuy xamal ne euh, Abibou Mbaye di nekk syndicaliste di fële. Euh, ca RTS mi ngi en ligne allo bu fekkente ne disponible na ngeen jox ñu ko. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam monsieur Mbaye ñu ngi lay nuyu. di la dalal jàmm yaa ngi en direct ci 2A TV. waaw ñu ak mboolem euh, euh, ñu gis ne tey am ngeen li nga xamante ne moo di directeur général bu yees di pap Alé am passation de service bu yàggul dara ak ki nga xamante ne moo di Racine Talla te mu nekkoon fa lan ngeen di xaar ci ki nga xamante ne moo di seen DG bu bees euh, bi lee ci invitation bi ngeen invité. Mhm. waaw li tax ñu am mbégte ci euh, suñu directeur général bu bees bi mooy fii may wax ak yéen maa ngi doog a dugg sama kër. daanaka sànq ba léegi ñu war RTS directeur général bu bees bi di recevoir travailleurs di recevoir syndicalistes recevoir directeurs recevoir wala nga xamante ni ay banques la yu nekk ci RTS. ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax ñun. ñuy wax ak yéen ay syndicaliste te bokk SYNPICS ak SYNPS ñaari ak yàllaa yi koy preuve ak directeur général de subvention kon bu yàlla defee biñ fi nekk nguuru euh, président Macky Sall jeex son excellence Bassirou Diomaye Faye ñëw essayer euh, de liggéey Sénégal jël Pape Alé Niang teg ko ci bopp RTS mu dem bay recevoir ñi nga xam ne ñooy syndicats yi nga xam ne ñoo nekk RTS te am ñaari syndicat yu ci nekkoon ñu koy wax SYNPICS ak SYNPES di leen liggéey en intersyndical tey bu recevoir ñu jàkkaarloo ko ci dëgg am mbégte lool te xam euh, yaakaar bu bees am na ci RTS xam nga alhamdulilah tey yëkkati na kàddu yu dal xel kàddu yoo te jëf ji mu jëf saaf firnde na ko. moom day daa fas yéenee tegaat RTS boo xamante ni bii waxuma la RTS bu raw ci Sénégal. waaye RTS bu raw ci Afrique yëpp loolu li koy bindee mooy bërki démb donc bi soo soobee aussi amee ca Gambie waa RTS ñoo dem assuré loolu lépp kon loolu du mën a nekk la euh, te euh, bu ñu ñëwee également wax na ni dafa fas yéene talal na comme képp ku nekk RTS delloo RTS bu nekkoon lépp loo xamante ni bi ay réunion yi amoon diggante ay agent wala diggante syndicat ak direction générale loolu lépp mu jeexal ko te loolu am na ci yaakaar mm. ñun nag ay syndicalistes lañ wax dëgg yàlla di ay journalistes ñu tegoon ñu ay coono yoo xam ne di wax ci dëgg-dëgg ñu naan coono buñ la teg ñaanal yàlla suñu borom rek jeexal kon suñu borom bi nga xamante ni moom la dara tawul moo jeexal suñu coono ca RTS indi un directeur général boo xam ne talal loxo boo leen koy travailler ca RTS. Mm-hmm. kon dañuy sant yàlla suñu borom baax a baax a baax. moom bi nga xamante ne hmm. ànd ak directeur général bu RTS parce que ne ko gunge ngir mu am ndam ban coono ban coono ngeen amoon RTS monsieur Abibou parce que maa ngi dégg sànq ba tey nga naan coono bañ amoon RTS dëñ na ñi nga xam ñoo ak yoo xam li ñuy wax ostracisme syndical ñuy wax tey jël li nga xamante ne bii moom mooy suñu ay membres yu nekk ak CNTS menacé ne mais da ngeen ci ab syndicat boo xamante ne bii directeur général bi fi nekkoon moo ko teg. ñu koy wax ab syndicat bi tudd seen parti ñu tuddee ko ñun mouvement de soutien syndicat boobu nag képp koo xamante ni bokkoo ca woon yàgg yi day daal sa kaw. Mm-hmm. képp ku ca bokk buñ la affecté wul. la ca poste ba nga nekkoon. Mm-hmm. loolu coono la man maa ngi nee naa la ñaari at yàllaa te ci maanaam ci ci ci frigo bi. kon kay dama bari ci ay morom du mat ñu fukki nit yoo xamante ni nekk da jafe jaf mm-hmm. ñii ñu affecté ñu wàcce leen seen poste ñii ñu buntu xatal leen loolu tey tey soxna si ay coono mm-hmm. donc jamono ji de soulagement am na am ngeen yaakaar ci seen DG bu bees bi. ah bu ñu amul yaakaar kay yaakaar kay am na ndax kay boo boo bu ñuy yokk sa digg foofu ci ñaari at teg la ay jafe def ko say morom. Euh, affecté ay mhm. ay nit ñu leen carrément bokkal la ci syndicat bi boo ci bokku ñu wàcc maa ñu affecté leen. waaw day day général bu bees kay day ñëw baax a baax. loolu kay ñu toll nii ne xam na Pape Alé la Pape Alé wax muy ay live am ak ay émission loolu lépp koy defee ci RTS yaakaar naa suñu ne ah RTS comme ni nga ko waxee jël RTS jël na ko Sénégalais ndax RTS naam na ñëpp xam ne RTS day accompagner gouvernement bu Sénégal koy def ak ñu mu àndal gouvernement bi nga xam ne ni euh, euh, euh, kii di ko jiite loolu lépp dañ koy wane naam mais buñ ci paree nag lépp loo xamante ni bi ab sénégalais la jooytu jooyu xol la wala boog ay jafe-jafe yu muy dund ci wàllu ndox ci wàllu courant ci wàllu dund bu seer ci wàllu dëbal lépp loo xamante ni ab sénégalais bu ko yëngu rek war ko mën a wane ca gis ko mu ci day saafara kon kay loolu la ñuy xaar ci xamaale euh, ja mais Abibou euh, Abibou Abibou Abibou man la Alaaji ay dara Euh, tey de dafa mel ni mbégte de passation de de service yi amagum yëpp de seen bos bi rek la ñu gis euh, ay tàccu te pourtant indi wuñ fa woon ay bongoman indi wuñ fa woon ay militant euh, waaye tàccu yi moom xam naa ne moom waa RTS la parce que yéen doo nga fa nekkoon. waaw xam nga xam nga loolu li ko waral. Ah. mooy biñ ñëwee dañuy def passation de service dañuy bëgg a def passation de service ci benn roq maanaam am na dafa am ay bureau yoo xam ne ay bureau RTS la yu bees yoo xam ne xam nga dañuy def chantier yi di ko liggéey. dafa am ay bureau yu ñu luwe fële ca wetu gaar ba gaaru Ndakaaru ba muy foofa xat na xataay boo xam ne foofu lañ bëggoon def yëf ya ci fi nekkoon ñu waxtaan seen biir ca bureau ba bu génnee gars yi nga xam ñoo daal koy tàcc mu daal ni fes dal yoonam noonu nag la ko bëggoon defe waaye Pape Alé Niang bi nga xam ne daa bëggoon a wax ak agent yi daal ni déedéet man damay dem ca maison mère ca triangle sud bi ca fa jàkkaarloog PHS wax ak agent RTS yëpp loolu ba mu paree def passation de service ba noppi da dafa bàyyi ñi nga xamante ni bii ñooy ñoo ñoo nekkoon ak directeur général bu ba fi nekkoon maa ngi dem benn maison mère wax ak agent yi moo tax bu mu ñëwee yaakaar bu mag a mag mag a mag bi Pape Alé Niang ñëwee dafa fekk agent RTS yëpp génn ñii nekk ci hall bi ñuy nekk ca balcon ba ñii yéeg fu ne accueillir ko bi mu waxee discours am yëpp tàccu ko am mbégte lool nag li li ci gën a am solo mooy tey jii bi Babacar Diagne nekkee directeur général RTS dafa jëloon dafa bu muy dem kii nga kii xam ne moo ko remplacé kii fi jóge jii lu ma bëgg tudd turam kii fi jóge tey jii Babacar Diagne da koo indi ba ci mbooloo mi daal di ànd ak moom def discours am yëkkati loxoom ni dénk naa leen waa ji waaye moom day deful lu ni mel moom daa bàyyi Pape Alé Niang ca Arsenal bàyyi Pape Alé Niang tuddum mu tax ak otoom ñëw RTS moom dong amul benn directeur bu ko accompagné dem taxaw fële Pape Alé Niang dong mu toog def loolu du du du esprit républicain loolu ñu ngi koy ñaawlu fa kanam yàlla un directeur général boo defee passation de service ba noppi da ànd ak ki nga xamante ni moom mooy ka nga ki nga ki nga wuutu nga ñëw ci kanam personnel bi ñu ne maa ngi nii maa fi nekkoon def naa fi lii def naa fi lii def naa fi lii tey nag maa ngi dem sama kay jeex na maa ngi leen di bàyyi ak waaye nag loolu amul. loola ñàkk am gu ñàkk am moo tax agent RTS yi am lu leen naqar lool waaye tamit boole lu leen neex ak lu leen jël na xay di teg ko fee jël mbégte mi nga xamante ni mooy mbégteem tey mi muy am directeur général bees ñu accueillir ko tatagal ko tàcc ko daal ko fi nga xam ne moo di RTS kon lii am na naam yoo xam ne bi ñu ngi koy ñaawlu waaye nag wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte moo xamante ni tey jii ku ne na ni RTS agent RTS yëpp amaat nañu mbégte ndax ay agent yu sol yu yu ñu métital fukki at ak ñaar ñeenti métital ñeenti at ñu mujj tar lool ñuy def lu leen neex directeur général boo xamante ni bii day jël aw yatam di dóor ay agent di def ay sanction yoo xamante ni bii teguwul fenn lu dul jege gu mu jege ki fi nekkoon njiitu réew mi ak soxnaam kon te yàlla suñu borom jeexal na ko Pape Alé Niang ñëw agent yi dalal nañ ko tàcc nañ ko am na mbégte ci moom suñu amee. jërëjëf bu ziar naa la. delloo ziar. Moustapha Mbaye la. eh Cheikh Moustapha boobu moom sama mbokk. waaw ma ma maa ngi lay féliciter parce que sonn nga trop ci combat bi yow tamit. ah ñëw naa ñëwoon naa foofu de. waaw <laughs> ah, yow kay fu fu ne taxaw nga ko fa vraiment xeex xeex nga ko ba mu mat sëkk sëkk. waaw coono bi métti woon na trop trop trop grand. waaw voilà mais man euh, sama question ma la bëggoon laaj rek mooy euh, lu jëm ci wàllum RTS. dañu xam ne injustice yi bëri woon na. injustice bëri woon na ba sànq sax maa ngi wax ne chantier bu njëkk Pape Alé Niang war a réparer mooy réparation des injustices naka la war a procéder ak injustice yi ya mu fekk RTS. waaw Pape Alé Niang moom yaakaar naa man de am naa yaakaar ci moom ni dina réparer injustice yi nekk RTS ndax sànq la bi ñu toogee di waxtaan ak moom bi ñu ko posé problème mu ñeenti agent yoo xamante ni bii dañoo dagg seen salaire ñu mën leen a lim ku ci mel ni Roguetou Ba ñu dagg salaire am injustement nga xam ne ab présentatrice journal ñu dagg salaire ku mel ni Billy Boy Gabi euh, euh, ñu koy wax euh, Djibril Mankouba ku ci mel ni soxna Daba Daba Diallo ma nekk ca eh, Ndar eh, dafa na am na ñeenteel wala juróomeel ñun ñëpp ñu dagg seen salaire injustement Pape Alé Niang bi ñu ko waxee ni ko ah ñun directeur bëgg nañ nga wax wax ci lii des daa jox instruction ci saafee bind ni nañ ko bàyyi xel kon kooku tey ñu ne préparer injustice leneen li nag mooy tey jii ñu ci xamante ne bii dañoo eh, ay victime lañ ci wàllu injustice ci loo xam ne naka su dul la Pape Alé wax na ni que dina ci xool dina ko càmbar xool kenn ku ci nekk au cas par cas analal moo nekkoon jafe-jafeem mooy li ay saafara wax dëgg yàlla man day du ay parpartoo du lenn ndax ñun kat sa waay <laughs> yàlla suñu bopp lay yaakaar mais xam nañu ne moom wax na ubbi na buntam tàllal na loxoom ngir fexe lépp loo xamante ne bi injustice la effectivement injustice injustice la ndax tey jii mënoo jël nit ni ko kaay bokk ci ab syndicat boo ci bokkul ma sanctionné la loolu injustice la dafa war a dakk mm-hmm. mënoo jël nit tey jii ah ko euh, bokk ci syndicat sàngam wala moo wala ma sanctionné la soo ko bañ nga sanctionné ko ah donc ay ay yu bëree bëree bëri yoo xam ne tey jii wax dëgg yàlla bu ñu doon wax li mhm. lépp wax dëgg yàlla moom mooy directeur général bu bees bi te yaakaar nañu ne bu ñëwee toog ko ci jàmm ak mu woo ay directeurs yi nga xam ne bii ñoom la fas yéene liggéeyal ndax kat am na lu ci bari loo xam ne nii amoon na diggante euh, ki fi nekkoon directeur général bu RTS ak ay directeurs yi lu ci bëri ñoom ay complice lañu ñoom ñoo ko dugal ci yéen tooxi doon yi kon tey si Pape Alé Niang il faut investissement pour préparer mu xool mu départir tàqali ko ñooñ doon ay directeur lañ jéem a xool ñu mu àndal ngir pessimi liggéey ak bees bu bees parce que on ne peut du du du du neuf avec du vieux c' est des gens yoo xam de temps beaucoup de temps pour se def de la RTS kon tey jii kon war naa mën a xool tey ba a xool ñi nga xam ñoo àndoon ak ki fi nekkoon directeur actuel bu fekkee ñu ngi leen ñu taxal foofu. merci beaucoup monsieur Habib am dañ la bu baax a baax. ci li nga xamante ne moo di intervention bi jërëjëf. merci beaucoup mu nekkoon euh, Abibou euh, Mbaye nekk euh, syndicaliste fële ca RTS xanaa rek ñu def li nga xamante ne moo di dernier tour de table parce que daanaka lañ ñoo cërale woon ca waxtu léegi mu jeex ñu daal di tënkee rek balaa ñuy jeexal li nga xamante ne moo di émission bi est-ce que Moustapha problème yi nga xamante ne taskatu xabaar yi ñu ngi koy faral di dund ña nga xam moo ko réglé li ni mel ku ci mel ni Synpex ak Correct est-ce que yaakaaroon nañu itam d'une pa seen mission